Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Euh, a fi gis li fi jot a xew ginnaaw bi ma dalalee xaritu baayam ba pare. dama daagu nànk rek dem seeti ay mbokkam tey tombeeg le 13 juillet di anniversaire am suñu ne nit baax na rek naka ay mbokkam wax moo tax ma daal di def quelques interviews rek quelques paroles ci ay mbokkam parce que suñu ne nit baax na rek na ko ay mbokkam wax topp leen ma ku ci yàlla jox kilifa gu mat kilifa nga bañ di wuuteeg moom man de gëm naa ni. joyeux anniversaire à notre grande sœur chérie. xaritu baayam. maa ngi tudd Racky may wax uh, ci bisu Soxna Faye bi xaritu baayam di wax uh, naan ko happy birthday to you que may wax nag Soxna Faye ko baax la jëru fët wax dëgg yàlla nekk naa ak moom ay ati at mais wax dëgg yàlla lu baax rek laa ko xamal day kaf day ree xeebu kenn bu ko neexoon muy xeeb muy xeebu kenn ni mu toy noonu la toy wax dëgg yàlla naan ko happy birthday to you ay ati at maa ngi tudd Marie Marie Guèye waaw soxna sama njëkk suñu lépp la suñu séeri la soxna baax na yaru na macha bëgg na xale yi bëgg na mag ay magam bëgg na tamit ay jabaram yemale na ñëpp addu gi nag maa ngi koy bàyyee sama rakk màggat maa ngi tudd Maguette Guèye ki ñu fi tax a toog tey muy jëkkër ci ñun chéri ci ñun lépp ci ñun muy kan muy soxna. waa comme que Marie moom euh, wax na l'essentiel bi bàyyi rek ma daal di dugg ci gërëm bi parce que macha allah nit ki nga xamante ne nii du gën a lante kenn nit ki nga xamante ne nii respecté na nit ndaxte nit moom. loo ko may may te mayoo ko respect yaakaar naa ne amul dara ci moom te ku mu gis muy mag muy ndaw jox na la cër jox na la yitte ba mu jeex moo mën ci suñuy gan moo mën ci suñuy xarit moo mën ci suñuy lépp bien vrai que ñoo ko waroon toppatool ay ganam waaye ñun suñu gan bu ñu ñëwee nañu ko ajal ba ci kaw waxtaanal leen reetaanal leen mënoon na ko cee bañ fekk di wujjanteeg ñun kon maa ngi leen bàyyee maa ngi bàyyee parole bi ak soxna May muy sama rak chéri Sultan di kontaan trop ci teewaay bi ngeen def sawar naa ci trop ndax si kenn may laaj dafa bokk ci man sama njëkk la soxna waaw di ko gërëm di ko sant bu baax ndax nit ku baax la ñëw na yaa ñëw nañ ci kër gi yaatal nañu tout ça nit ku bëgg ay xale la nit ku bëgg ay mbokk jàmbur la ku baax la di ko gërëm ak li nekk ci xolam yal na ko ko yàlla may di ko ñaana yàlla may ko jëkkër ju comme ni ko sama ñaari mag yi waxee rek ku bëgg nit la gan bu ñëw dangay def comme ganam waaw di ko ñaanal daal mënuma wax di ko ñaana gudd fan wér ak wérle happy birthday à notre chéri xaritu baay onzième joyeux anniversaire joyeux anniversaire ma Bakar je te souhaite la totale li nga bëgg sa xol yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal yàlla may la gudd fan ak wér loo ren yàlla na mën lu ko raw déwén maa ngi lay ñaanal duma def nag discours bu gudd ndax yow xam nga man xam naa nekkatuñu ay xarit léegi dañoo mel ni kon ñoo bokk ndey yaa gën ci man ginnaaw yàlla may maa gën ci aw kon xam nga lépp faraayam xanaa neex xaritu baayam macha allah di ko wax rek joyeux anniversaire bis bi sa bés la xaritu baayam nag su may wax ci moom mën naa ni man sax bi ko xamee yàggul xam nga lan lay rëccu li ma ko yéex a xam ni ma ko gisee mu am diine am lislaam doon nit ku simple ku modeste te man loolu rek laay wër ci nit soo simple rek danga may neex loolu moo ma neex ci moom soxna baax na soxna ubbeeku na soxna yaatu na man lu baax rek laa xam ci moom rëccu ma benn yoon lu ma ko xamee man daal maa ngi koy ñaanal li bëgg si xolom moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defaral chaîne bii ñu bokk di ko liggéey lim ci bëgg tamit moo ko xam yàlla na ko ci yàlla jàppale ba lépp jëm ca kaw di ko ñaanal rek gudd fan ak wér di ko wax rek macha allah bëgg naa ko ba pare loolu kenn mënu ci dara man bu ma xisee ba jàpp nit rek jeex na waaw di ko wax happy birthday to you longue vie santé bonheur prospérité jàmm ju mat sëkk la yàlla defal jàmm macha allah. c'est la plus belle la la plus gentille la plus cool de la meilleure soxna Fatou Faye tu es sans dañu xamante yàggul mais yar rek nga ma wax ak euh, lu baax jullite nga baax nga yaru nga di nga wax ndànk di nga dox ndànk li ma ci gën a neex na nga jël sama xarit bi nga xam ne dëgg na ba fu dëgg yam nga changé moom ko ba mu nekk nit nii réglé normal tu vois di la ci li nga bëgg xam yàlla na ko yàlla defaral yàlla na ak say sët say sët sëtaat sa kër mu koy feete foofu ñëpp ndeysaan ca lay dàkkee sax li nga bëgg sa xol yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal joyeux anniversaire ma belle bisous à toi beaucoup de bonheur beaucoup de bonheur képp ku juddu si bés bi jàppal ni yaa moom lii happy birthday un an de plus kon jëlal yaa moom lii happy birthday yow la mala kon ñu la jege sil ñu féeteli happy birthday yóbbu si gisi sa bopp jege sil ñu féeteli happy birthday happy birthday birthday happy birthday happy birthday happy birthday birthday happy birthday happy birthday happy birthday ah. internet yi gis ngeen lan lañ fi jot a waxal xaritu baayam kooku mooy kan soxna Fatou Faye quelque mbokkam wax nañ ku ci mel ni ay belle ay xaritam ñoo ñëpp wax nañ ci xaritu baayam waaye xaritu baayam lépp loo wax ci moom rek am na lu des ndaxte man mi binush maa leen mën a wax kan mooy xaritu baayam di soxna soxna dafa nekk ki nga xamante ne macha allah damay naan yàllaa ko yaral boppam. soxna man su may wax ci moom fii ba suba du yegg parce que macha allah ku xam soxna gis beneen ca wet ba ci complice ba lépp li nga xamante ne. man dama koy def te àndu ci rek dama koy teg ci suuf waaye lépp li nga xamante ne da koy def te man ànduma ci man bi net moom du ko def kooku may soxna fay man daal li may mën a wax daal di la ñaanal di la ñaanal ndaxte yow loo comme ni nga ma ko waxee woon rek waaye yow loo amagul rek soxna dafa dikkagul rek mais yow lu jot rek incha allah di ko am xaritu baayam. مجمل وعيسى أبي